Euh, jërëjëf sant yàlla euh, xutba bi xam nga xutba actualité la ñuy xutba gannaaw ba ñu ndokkeelee jullit yëpp xamal leen ni weeru koor ay yaaman daatin ay fan la rek yu ñu doon lim euh, wax leen njëriñu feet gi mooy mbégte bi jullit yi am ci feet gi nga xam ni tey lañu yàlla santoon def nañu ko ba mu jeex Euh, génne zakatul fitri muy azaka murum koor yi war a dox ci mbedd mi sol yu rafet ñoo xam ne tey lislaam nii la mel euh, daal joxe it message ci li nga xam ni moo xew bërki démb ca Medinatu Munawwar muy attentat bi fa xew euh, ma wax ni war nañoo xam ni jullit du def lii du takk bomb dugg ci ay jullit rey leen reyaale boppam te man qatala nafsan mutaammidan fa jazaauhu jahannam yàlla nee na ku rey bakkan tey ko sa fay mooy safara xamal nit ñi ni ñi nga xam ni ñu ngi reyaatee bu nu ko jiiñee lislaam du lislaam xutba bi ci côté boobu laa jéemale yee ci doomu adama yi ba ñu xam ni rek du xare Euh, dugg ci jàkka yonent bi xam nga rey nit loolu mënoo tuddee ni jullit moo fekk ay jullit def leen loolu kooku xel nanguwu ko ñaareelu tomb bi itam ma ñëw ci wàllu alquran mu di daara yi ndax yëg nañu ni fan yi yëpp gis nga yëngu yi am ci taalibe yi ñuy ramaas euh, ma wax ni inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu la xaafidun euh, yàlla moo wàcce alquran te moo koy wattu moo waxtaan ci point boobu ci waxtu wi mu xewee dafa am yu doy waar yu ci am mbay mooy weeru koor la alquran wàcc Sénégal doon quatre-vingt-quinze ou quatre-vingt-dix-huit pour cent musulmans la ramadan alladi unzila fihi alquran alquran ñu wàcce ko ci weeru koor euh, wàcce ko ci guddi laylatul qadri ma seet ni ramas bi ñu def mi ngi door weeru koor mu doon lu doy waar ñaareel bi itam mu ngi tàmbali guddi lay laylatul qadri ndax guddi lay laylatul qadr yonent bi dañ ni nañ ko wër ci fukki fan yu mujj yi Serigne Touba bis bi mu jàpp ni foofu la muy guddi ñaar fukki fan ak juróom ren nga xam ni moo tombeek alxames bis boobu la commencé ramas bi ajjuma samedi euh, doon ñaar fukki fan ak juróom guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar fi ñeneen ñi dàkkoon ni fii lay leetul qadri mi ngi fi bés boobu ramas gi gën a tar ma xool ma ni leen weeru koor la door guddi laylatul qadri la doon fukki fan yu mujj yi ci réew moo xam ne ay jullit fa ëpp loolu ma xaw ko ñaaw la bi ci des itam ma wax ni bu nu jaawale itam euh, taalibe yi ak ñi dul taalibe ma ni sëriñu daara yi itam euh, mënoo jël ay xale lu ma téeméeri xale euh, sànni leen ci mbedd mi kenn ku ne nga ni ko indi mille francs par bés kooku boo ko jëlee bés bi dina doon cent mille francs 10 jours yi dina doon un million un mois bi dina doon 3 millions taali sëriñ gi nga xam ne jàngalewul jël ay xale sànni ko ci mbedd mi bëgg koo tuddee alquran ma ni kooku itam nanu jóg ñu xeex ko ba ba li setul ñu dindi ko li nga xam ne bokk ci ñu génne ko ci waaye ki nga xam ne yor na daaraam yor na ay taalibeem taalibeem xëy yalwaani lu mu añee bu paree dem da dellu ca daaraam di jàng kooku bu nu ko bëggee xañ loolu dafay metti te yàlla moo ni nag Eh, ma salakakum fi saqara ñu ne ko qaalu lam naku min al musallina am lam naku nut'imul miskin lan moo leen dugal safara ñu ne ko yàlla daawuñu julli te daawuñu saraxe kon taalibe mënula ñàkk tàllal loxoom dem yalwaan waaye taalibe bu nekk ci fëyi 6 heures di matin ba minuit kooku mënuñu ko d'accord kon seriñu daara itam am nañu eh, lu ñu war a def li ma ci gis nag mooy eh, gouvernement bi waroon na ci déggoo ak sëriñu daara yi nga xam ni xam nañu li xew ñu dugg wax ak ñoom seet li rafet seet li nga xam ni deru lislaam du ci tilim ndax lu mel nii su amee noonu l'islam yi dañuy profité dugg ci biir rax ci lu ci bokkul wax ci lu ci bokkul def ci lu ci bokkul ndax fi mu nekk nii ay taalibe yu nu jël ramasse yóbbu leen ci centre centre boo xam ni ña fa ne dunu dunu ñooñ alquran jàngale wunu ñu yóbbu xale bi sangu ko sololu ko yére jox ko bal mu futbal mais taalibe bi foofoo ko dàqal daara ji waaye daara ji moo ëpp mucc ci taalibe bi ñun ñii ñëpp jaar ci daara man taalibe laa yor fii samay taalibe naam du nu yalwaan depuis 84 maa ngi daara waaye taalibe yi du nu yalwaan waaye kon ki yor daaraam di jàngale bu leer te taalibeem di yalwaan bu ñu ko ramassé yóbbu ko ci centre ma wax ci biir xutba bi ni nañu jël ñoo ñu delloo leen seeni i sëriñu daara te waxtaan ak ñoom ma wax ni sëriñu daara yi itam démb métier taalibe jàngale la njaay ak bay sëriñ sépp dañoo yoroon ay tool yor fa ay taalibe di jàngale bu nu bayee ba pare jaay la bay dund ca kon léegi bu sëriñ bëggee bëggee dund te te du jàngale du jaay du bay ba pare bëgg tudd sëriñu daara mooy jël xale yi sànni ko ci mbedd mi ñooñu nag bu ñu leen jëlee boole leen ak taalibe yi jaxase ko dañuy boole dëgg ak neen te yàlla nee na wala talbisul xaq bil baatili wa taktumul xaq wa antum taalamun moo tax daal mbay sunu xutba tey ñu gën ko jëme ci wàll woowu te alquran euh, Sénégal mënuñoo dem lu dul ñu jox alquran cëram gis nga alquran wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka yàlla nee na su ngeen dëddoo alquran yaakaar leneen ni moo leen di yóbbu du ngeen dem ndax alquran rek leen mën a safe Seydi El malik daara la fi ne woon Serigne Touba maam Cheikh Omar Foutiou Alhaji Ahmad Borom Njëgën tafsir Abdourahmane Gueye tafsir Moubarak gay ak almaam Amari Ndaak Seck maam Seydina Limaamu Laay mag ñi ñuy tudd ñëpp daara la ñu yoroon kon daara li mu defal Sénégal mënuñu koo fay kon bu ñu tolloo ba fii ñuy ramas ay taalibe di ramasse ñu dul taalibe jaxase leen di leen sonal euh, loolu daal moom laa jëmale sama ba mbay ñi mu waroon taxawee mooy bi ci njëkk ci sama gis mooy mu seet ñi nga xam ni ñu ngi ci daara xam nga mbay dañu am problème da ngay gis léeg-léeg état day jóg bëgg a wax ak daara dem wax ak ñoo xam ne ay projet rek la ñu yor waaye yoruñu daara dafa war a dem fekk ci base bi ñi nga xam ne ñu ngi yor ay daara toog di jàngale te nga xam ni bëgg nañu dëgg ñu toog waxtaan léegi ñoo ñu mën nañoo ànd ak ñoom ci liggéey bi su boobaa ñi nga xam ne ñoo ci bokk dinañ leen mën a génne ñi nga xam ne dañoo tudd daara tudd daara ñu mën koo régler waaye buñ leen ci boolewul ah jékki rek jóg dafay daal di jur fitna te sëriñu daara yeneen yonent bi li mu wax du dañ de xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale loolu daal mooy li nga xam ne daal moom laa ci xam mbay kooku itam wax naa ci ci xutba bi xam nga yonent bi dani suumu li ruyati wa aftiru li ruyati fa in gumma fa akmilu thalathina yawman yonent bi dani na ngeen woor su ngeen gisee weer wi na ngeen wori bu ngeen gisee weer wi suñ leen dee niis ba mënu leen koo gis ngeen matal fan weeri euh, fan xam nga weer wi feeñ na waaye mënuñu koo gis mais looloo waral ñu war a bu dee seenu weer ñu ni weer wi kat feeñ na waaye bët mënu koo gis ndax dafa tuuti mais bu dee kenn mënu koo gis te ñu ni feeñ na mais yonent bi nee na matal leen fanweeri fan ndax ndax ndax dafa lin lëndëm wala dafa niis wala dafa toll noo xam ni mënuñu koo gis su boobaa dañuy jéem a matal sunu fanweeri fan eh, ren nag yàlla dogal na woorandoo wu ñu naam am na ñu tuuti nag ñoo xam ni wooruñu bi nit ñi di woor eh, waaye bi julli gi jotee ñëpp julleendoo te boo seetee li ëpp ci réew mi ñoo woorandoo nag te yàlla nee na summa afidu min haythu afada naas fa nit ña dëbbal wuti ko ci yiw ah su ngeen fa demee mën ngeen fa fekk yàlla kon ñu tuuti ñi nga xam ni kay na ñooy génn bañ a worandoo loolu amul njëriñ ci réew kon defe naa ni daal bu ñu gënee déggoo gën a waxtaan te teg lépp ci alquran ak sunna te nangul sunu mag ñi nga xam ne nag ñoo fi ne nangul leen jël lépp teg ko ci alquran ak sunna su boobaa daal euh, julleendoo gii ñu def yàlla mën na ko saxal ba ñuy woorandoo di julleendoo ndax loolu mooy jàmm Sénégal waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yàlla nee na booloo leen te bu leen tàggoo kon julleendoo bi daal bég nañ ci sant nañ ci yàlla yàlla ko fi yàlla saxal bu baax a baax a baax a baax ci réew bi bay